parce que tamit euh, mhm. seen dossier mu ngi bëri tribunal la plante de Mame Mbaye Niang yéen tamit ngeen mhm. woy war a wuy ji le 2 février prochain affaire Prodac bi nee nañu wax waxeet la def Kër Massar euh, le président Ousmane Sonko parce que nee na rapport bi ci internet bi la ko gisee tout loolu it beneen problème la bisaan du nangu nga ni am na rapport bu épinglé Mame Mbaye Niang muy la IGF rapport mi ngi mi ngi mi ngi disponible ci internet bi donc rapport boo question alpha le monsieur il est am na rapport bu ko épinglé président Macky moo si teg loxoom mais na dem wuyu ji ci loolu noonu les vingt neuf milliards de Prodac la na ci dem wuyu de toute façon il a été épinglé muy ñeneen ak ñeneen ñu épinglé Cour des comptes yeneen nag ñoom ñëpp il traîne des casseroles et des dossiers donc président Macky Sall loolu doy na ko sëkk lu mu gérer pas topp un adversaire pour empêcher pour empêcher mu présenter wu en deux mille vingt quatre loolu vraiment moom mooy mbër bu mbër boo xamante ni mm. je dis roi des arènes mais yaay tànn say adversaire genre yow yaay Yékini ay yaaw jaal ngay tànn ak ñeneen pour mën leen kii vraiment fekkee daal wóolu na boppam. Mm-hmm. moom déjà du bokk na wut un dauphin. kooku su bokkee na bàyyi ñëpp bokk koo xamante ni vraiment tu réponds aux aux ñu bàyyi la nga bokk élection yi. askan wi ñooy fal ñooy xool ku leen doy ñu jox ko seen suffrage pour mu nekk président 2024 et lii li jàll wane na ne depuis élection municipale yi ba élection législative yi xam nga ne ñoom ils n'ont plus la majorité à l'Assemblée 2017 ils avaient 125 députés 2023 bii nii ils sont avec 82 députés donc cohabitation am na malheureusement loolu neexu ko mais il doit savoir qu'il est devenu impopulaire dans ce pays na génnee nu mu rafetee li ko dese ci ay mois mu doxal su paree mu rendre le tablier keneen ñeneen suñ ñëwee sénégalais tànn ku leen soxal pour mu nekk président. Mm-hmm. je précise que tudd nañ fi procureur l'ancien procureur Serigne Bassirou Gueye à l'heure actuelle mu ngi nekk di def conférence de presse commencé na conférence de presse bi suivre nañ ci tuuti mu ne luñ koy taqal dara amu ci tout mais plan B bi wax naa la ko. plan B bi parce que da ngeen di faral di wax naan Pastef du nit projet la te en politique aussi tamit d'habitude da ngay prévoir lépp parce que lépp mën na arriver aussi bu dee projet la rek rek rek donc war na am koo xam ne ni peut-être mën na ko porter ku dul Ousmane Sonko aussi waa loolu laa expliqué parce que rapport de force bi ngeen jëm aussi mën ngeen ko perte aussi waaw dama lay expliquer euh, Mbissane mm -hmm. projet protégeons le projet le projet actuellement c'est président Ousmane Sonko dañuy def tout pour Ousmane protéger Sonko projet personne non mais actuellement moo porte projet bi moom moo porte projet bi donc on a un devoir de le protéger mhm. fii nii ba deux mille vingt quatre moo koy mooy porter projet mooy suñu candidat mhm. fi mu ne amaguñ benn plan B moom la ñu porte mhm. Pastef nag bëri na ay cadre bëri na ay potentiel on est un parti bien structuré donc loolu noonu bis bu jotee ñun dinañ ci antu mais nii nii à l'instant bi ma lay wax ak yow. Mhm. moom mooy suñu candidat mooy suñu plan A B C D F G moom la ñuy moom la ñu euh, comment on euh, la ñuy jox pour mu mu pour mu pour mu pour mu nekk suñu candidat en deux mille vingt allah amul beneen plan bu ñu bu ñu bu ñu wutagum pour le moment n'est-ce pas moom lañ investir. pour mhm. deux mille vingt quatre pour Pastef. loolu moom duñ ci dellu ginnaaw et nañ ko protéger incha allah ba li mu bëgg ak li parti bi yëpp bëgg que protéger projet bi mën a antu et que mu nekk njeexital ci ci askanu Sénégal mhm. léegi ñu ñëw ci yeewi askan bi de manière générale wax nga ko léegi bi ngeen jëlee bu ñu jógee élection locale ak léegi bërki démb la ñu feete premier anniversaire bi yëttu seen bilan ba notamment à Kër Massar anaka Kër Massar yëpp yéen a ko raflé et tout est-ce que tamit parce que gars yi am nañu commencé kaasa ah, maa ngi seetaan waa marché Dior et tout ñuy réccu lu tax ñu tegoon fa meeru yeewu askan wi parce que da leen di bundu xataal kii demee noonu est-ce que tamit comme lu tubaab euh, di wax wa non au fait mbisaan soo nekkee ci dëkk mhm. nga fekk ci anarchie mhm. gis nga aménagement du territoire parce que yow xam nga prolifération marché anarchie yi nit da ngay yor sa taa fu la neex ngay teg. nga encombré voie publique bi. piétons yi duñ am fuñ jaar fuñ defar passe kii euh, trottoir pour les piétons. nit ñi def fa seen di laal. di jaay loolu aussi loolu devoiru maire yi la mu organiser loolu. dëgg la maire su amee espace mën na créer d'autres espaces yoo xamante ni pour ñooñu ñu mën leen recaser foofu ñu mën daan seen doole. parce que xam Sénégal secteur informel bi am na fi doole trop. maintenant les maires aussi. da nga xam ne yow dëkkuwaay nu mu bindoo en général dëkkuwaay yu xat la. tali yi xat na trottoir yi xat na oto yi sax pour ñu am fuñ parqué c' est tout un temps problème. xam nga avant maire yi maire maire euh, Kër Massar sud ak Kër Massar nord yeeyu dis jot. foofu noonu fi fi pont bi nekk moom presque marché noir la woon. da nga soo fa bëggoon jaar sax mën nga fa def une heure de temps pour dugg biir Kër Massar. mais xam nga léegi kii bi fluidifié nañ ko parce que ñi fa nekkoon ñëpp déguerpir nañ leen peut-être que. Euh, mën nañ leen recaser feneen parce que Kër Massar quand même dese na tuuti foncier foo mën nañ leen fa def au nit ñi suñ leen soxlaa ñu fekk leen ñu dégager voie yi n'est-ce yi am facilité di dox normalement oto aussi ñu am fu ñuy parquer te loolu liggéey bu rafet la askanu Kër masaar war nañ ci ànd muy six communes yu constitué Kër Massar yëpp Kër masaar war na gën a changer xar kanam parce que li fa nekk li fa yeewoo bëri na donc war nañu am ay aire de repos yu doy yu doy am ay promenade yoo xamante nit ñi dëkkuwaay nu ñu xatee ñu mën a génn féexlu parce que foncier bi des na loolu quand même maire yi ñoo conscient nañ ci loolu maintenant nag comme di am na ñoo xamante ni seen intérêt personnel rek lañ bëgg mu primer ci intérêt collectif bi mhm. da ngay ne ci kaw trottoir lal say say kii di jaay suñ la fa jëlee nga ne noo dama si daan sama njaboot non société dañ koy organiser mhm. suñ ko organiser ku nekk trouver sa compte mais pas dans une anarchie moom loolu kenn mënu si développer dëkk. Hmm. gëm ngeen ne population yi euh, daal li ngeen diggoon population yi y' a ngi ci. waaw ba léegi yu demee noonu. waaw actuellement man je salue de passage le maire euh, bilaal le maire de Kër Massar Sud. gis naa tout récemment mu def euh, acte bu non par rapport à la couverture médicale jënd ay ticket di ko may néew di doole yi. loolu lu am solo la. xam parce que dañoo nekk ci société boo xamante ni. Euh, feebar faju nekkul lu yomb. n'est-ce pas ñu ngi aussi conseil départemental bi ñu ngi jéem mettre en place benn couverture médicale. boo xamante ni pour les six communes ki constituent le département. donc euh, communes yëpp maire yëpp ñu ngi def ay jéego Yeumbeul Sud aussi le maire Bara Gaye mi ngi def ay lu jëm ci loolu donc ñëpp ñu ngi def ay jéego malgré que communes yi euh, seen doole seen recette demewul noonu. et que li ma gis ne mooy en général état bi sax leen di bloqué pour ñu mën a récupérer fonds yooyu noonu. donc loolu. beneen forme de combat la bu état bi mu ne envers les maires de Yewwi war na ko bàyyi ñoom ils se disent républicains démocrates suñu ñàkkee war nañu nangu su maire yi waree liggéey comme que acte trois de la décentralisation am na yenn compétence décentraliser pour les pour les collectivités locales mm-hmm. nañu permettre maire am prérogative rentrer ci seen i recette ñu mën a euh, investissement yi ñu war a def seen commune ñu mun ko def nu mu nu mu yembe mm-hmm. euh, maire Kër ma Massar Nord Adama saar certainement dinañu am jotaay moom tamit pour ñu gën a xóotal loolu